jërëjëf mbokku téléspectateur yu global télévision ñu leen di jaajëfal bu baax euh, ci teewlu bi euh, bisimilah ci xibaaru marax bi ñu leen di jaajëfal euh, léegi léegi ñu wax leen li ci gën a fës. li ci gën a fës nag bokk na ci tukkib nemmeeku Bassirou Diomaye Diakhar fay foofu nag ca nga xamante ne moom mooy ca Paris ah, tey jii nag la départ ci àllarba ji ah, war a nag fekkee ab forum bu am solo ah, jëmali nag ci wàllum gavi maanaam wàllum wérgu yaram ngir rek daal di teewee forum boobu ngir rek àdduna wërngal këpp xam nag Pastef bi nga xamante ne ña fa war a dajee ñu ngi koy def rek ngir moytandiku ay jàngoro ci loolu nag buñ ca jugee Euh, dinañ waxaat ci leneen lu soxal nag mbirum lu soxal nag ci mbirum euh, jàmmarloo ba nga xamante ne moom moo amoon foofu euh, ca Medina Gunas euh, ngir nag ginnaaw jàmmarloo nga xamante ne ñaari doomu aadama daal nañ ci ñàkk seen bakkan jëwliñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum intérieur di Jean Baptiste tin nag daal nay dem foofa ngir rek indi fa jàmm dinañ ko teewlu ci biir xibaar yi ak ay jàngatu Ali Mangasa ba tey nag ñu desandoo ci biir xibaar yi wax uh, ci leneen lu soxal nag mbirum uh, tabaski ñu gis ne nag uh, dëkk bi am na set boo xamante ne nag seetlu nañ ko fii nag ci fi nga xamante ne nag moom mooy dakaar ndax Sonaget am na liggéey bu am solo boo xamante ne nag defoon nañ ko fa ñu nara nag buur yi lay xibaar nag ak aj 2024 ñu gis ne nag lu tollook juróomi téeméer ak juróom fukk ci ay pèlerin daal ñu fay ñàkk seen bakkan dara waralu ko rek lu dul tàngoor bu bu jéggi dayo euh, Sénégal sax am na ci ñoo xamante ne tamit ñàkk nañ ci seen bakkan dinañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi euh, ci ay leeralu Aïssatou Ba mbokk yi kon ma loolu moo nekkoon li ci gën a fës bu ngeen taaxir loo ñu faram ko li nga xamante ne moom la ñuy dooree xibaar rek mooy jàmmarloo ba nga xamante ne nag moo amoon ca camp pénal bu Liberté 6 tey ci ci suba nag ñu gis ne nag ab jàmmarloo amoon na diggante ñi nga xamante ne nag ñoom la caabi féetee ginnaaw ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñay garde foofule euh, mu wan le nag ab fuy maanaam nag seet bu ab euh, sud ñi nga xamante ne ñoo doon garde doon seet foofu looloo waral ak coow li looloo waral nag jëwliñ ji nga xamante moom lañ dénk wàllum yoon di Ousmane Ousmane Diagne foofu euh, foofule ngir indi fa ab euh, dal waaye nag euh, ba mu fay jóge jàmm rek la fa bàyyi suñu sukkandikoo nag ci suñu information yu jóge ci suñu ci suñu naataango ya nekk foofu ca Dakar Actu ñu waxoon nag ci li nga xamante ne moom moo gënoon a fës ñu ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi muy tukkib nemmeeku Bassirou Diomaye Diakhar Faye fële nga xamante ne mooy ca Paris mu àndoon nag première dame bi di Marie Khone Faye euh, ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew mi tey jii ci alxames bi ci la jóge fii ci Ndakaaru dem foofu ca Paris euh, ngir rek daal di euh, participer ci ab forum bu mag forumu Gavi ngir rek ñu daal di wax nag li nga xamante ne moom mooy soxal ci wàllum defaru vaccin bëgg nag Afrique wërngal këpp rawatina nag àdduna wërngal këpp jot ci li nga xamante ne moom mooy vaccin yi doomu aadama yi soxla bile événement nag am dayo boo xamante kenn mënatu naatable ndax dina yokk li nga xamante ne moom mooy defaruk euh, vaccin yi waaye nag euh, diggante euh, mille vingt 2026 jàpp mille 2030 nag li nga xamante ne moom mooy ay koppar yu leen fond Gavi di jagleel ngir rek ñu daal di ñoom it mën a defar seeni vaccin wu bopp wala rek ñu mën a jot ci les vaccin bi ndaje nag dina wane nag Pastef bi nga xamante ne ñoom ñoo fa ñi nga xamante ne ñoo fa dajaloo dañuy wane rek Pastef bi nga xamante ne moom lañ am ci mbirum euh, wérgu yaram tamit euh, dina tax euh, ñu mën a nag jàkkaarlook feebar yi nga xamante ne wala doomu jàngoro yi nga xamante ne àdduna wërngal këpp ñu ngi koy jànkoonteel ba tey ñu desandi ci bileeb tukkiib nemmeeku ñu gis ne nag bilee tukki mooy tukkiib nemmeeku bitim réew bu weesoo Afrique bi nga xamante ne nag njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko tey jii nag fukki fan nag juróom-ñeent ci weeru juin ñu ne nag euh, muy indi defarok euh, diggante euh, Sénégal ak France mi nga xamante ne moom mooy réew bi colonisé woon suñu dëkk ñu gis ne nag la woon woni na ci ñàngatu nag Fatoumata Seye moom la ñuy lu dellu si waat ki fa nag benn ci weeru mai atum 2024 Elimaanu jëwriñ ngir Ousmane Sonko daan na porox ndollu ci nganuk kii di Jean-Luc Mélenchon daal di fa nag xas ki nga xam ne mooy njiitu réewum France di Emmanuel Macron mu doon ko amal fële ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi te Ousmane Sonko dong la ñuy nooyee jamono jooju nag moom Elimaanu Joori nji Ousmane Sonko daal di na xamal ne ki nga xam ne nii moom mooy Emmanuel Macron dafa gëmma ay gëtam ci doxalinu ki fi nekkoon njiitu réew di Macky sàll ci kaw ñamu doon ku jël di leen teg ay métit di leen bundu xataal ak di leen xañ seen àq ak yelleef yemuñu ci loolu diggante 2021 ba 2023 fii ci Sénégal li fi rot ci ay bakken kenn mënul xam ñaata la ba pare deret tuuru fi loolu yépp Emmanuel Macron mu ngi fi woon te yooyu ci yàbbiwu ci tax nag ba ki nga xam te ni moom mooy li dooru Pastef yëkkati ci ay kaddu waaye tamit masul na bu benn yoon ñàkk àndam ci doxalinu France ak Afrique rawatina suñu réew bu Sénégal tax nag ba gan gi nga xamante ni moom mooy njël yoon ci bi mu toogee ba léegi moom Bassirou Diomaye fay fële ca France ak porox ndoolu la nag waaye tamit nekk na loo xamante ni la fa fas yéene daal di dippee lu ama ama am solo la moom Bassirou Diomaye fay di njiitu réew mi ba ñu ko falee ba léegi tànkam yépp mu ngi koy dox ci ni muy retaxalee ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ay dëkkandoowam ndànk-ndànk nag mu jëm france woote bii nag da cee porox ndollu jóge ci gavi alliance du vaccin ak union africaine mu fas yéene fa nag daal di janox ki nga xamante ni moo di emmanuel macron mu fas yéene doon nag okkatu wu dajeg gestu ñaari mbir la mu nam fac yépp foofu la koy defee rawatina nag añ biñ ko woo ci digganteem ak Emmanuel Macron foofu nag ci la lépp naraleere ci jëflante gu bees gi nga xamante ni France fas na ko yéene amalaak Sénégal rupture ba maanaam la woon woon ni na jamono jooju nag France tamit mu nga taxaw ci diggante Sénégal mi nga xam ne dafa bëgg moom boppam doxalal boppam xoolal boppam ca fa mu jëm ak waa extrême droite ñi nga xam ne nii ñu ngi puus bu baax ngir ne faax ci ba tey ñu desandi nag ci bile forum benn milliard de dollars euh, ci ay euh, kopparo Amérique nag moom la ñuy xaar ginnaaw nag bile forum foofu ca Paris euh, suñu sukkandikoo nag ci jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dànk wàllum wér-gu-yaram fii ci Sénégal di Ibrahima si moom xam ne ne yile koppar nag dina tax ñoom ñu. ñun ñi wa Sénégal ñu mëna défar euh, suñuy vaccin bopp nde euh, d'autre ñu euh, jafé té duñu ko djéggané ñu teewlu Ibrahima Sy suñuy confrère yu APS ñoko ko dékkoon micro. lorsque Gavi. waaw Gavi nak xam nga bu mobiliser alal ju bëri loolu dana. permettre ay réew yu xamné yu mel Sénégal ñu am ay vaccin yu bare yo xamné dañ ci mëna a vacciner xalé yi Euh, te yaakaar naa ne foofu lañ war a gën a def laksan pour permettre ñooñu ñu développer seen système immunitaire bu baax ndax ñoom dañoo doon ñoo xam ne euh, ci seen wàllu at fi toll dañuy doon ñoo xam ne dañoo aawlu waaw loolu tam dana permettre ñu wàññi dépense yi nga xam ne moom la ñuy jëmale ci wàllu santé ci ay réew yu mel ne suñu réew yi nga xam ne yenn saa yi seen système de santé bi ñuy yor. du mën offrir manam ay qualité de santé manam qualité eh, yenn ci ay vaccination donc buñu ñu def prévention bi ak vaccin yi euh, dana permettre ñu ñu wañi lo xam ay dépenses de santé lay doon. Euh, jusqu'à 14 ans. ca jàmmaarloo yi nga xamante ne nag moom moo amoon foofu ca Medina Gounass Thierno Amadou Tidiane Ba euh, nag xam yiile yile euh, jàmmarloo nag mu nga amoon ca ginnaaw nag fête bi nga xamante ne moom mooy feetu it bi. Ah, di tabaski mu wan ni nag kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu amoon nag jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñi ngi xam ne ne ah, dina ñëw bëgg nag li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg gi daal di ah, feeñ waaye xam nañ nag fu coow li tukkee ak la nga xamante ne nag moom moo koy indi Seydou Ba nag nekkoon foofu maire ca commune bu Mérina Gounass li mu bëgg rek mooy autorité yi daal di jël seen responsabilité te xam te nag daal di tée Euh, Samba booy yi def euh, jëf ju ñaaw euh, Aïssatou Ba moo leen dikkoon micro suñu xalif seen xalif xalif senegal yëpp xalif adduna bi yëpp parce que kenn réerewul mbir Dakar ñu ne Dakar Médina Gounass léegi ñëpp xam nañ ko nit ñi di jógee fu ne bàyyee ko fu ne ñu di ko ulsi muy nitu yàlla boo xam ne jàmm dong la bëgg moom lay oote bu leen kenn wax leneen lu dul xalif bi jóge na këram euh, euh, euh, bërëb jullikaay bi di ñibbi këram ñu jël xeer dóor ci vitre bi mënuñ ko dóor ci ginnaaw oto bi mbaa dóor mais fii mu toog ci kanam fi mu toog foofu la ñuy dóor xeer bi kon boog te man su ma xeet ñaaw na ci kooku soo man la engage dama ne bi vitrine blindée nan la koy xeer bu na tojee nañu seet lan moo lan moo ko toj nu nguur gi dafay enquête defar ñu situé responsable yi ñu xam boutique yi ñu toj yàq-yàq yu ñu def gendarmerie mënul nekk foofu ñuy jël ay xeer di ko tëmbal ci biir kër Thierno di gaañ njabootam loolu yëpp lu jar a wax la léegi ñun jàmm la ñu woote mais dañu bëgg nag nguur yi mu doxal mu def enquête am dañu ne dañu bëgg ñu ne am nañu pétrole dañu bëgg Sénégal émergent mais ñu émergent fekk newu ci jàmm c'est pas possible émergence da muy mu àndal bu dee sa dëkk fi nga dëkk fi nga sanc baa sa biir kër mënatoo fa am jàmm mënatoo fa toog fu jëm li ñu war a def nag ñun bu soobee yàlla mbooloo bi toog fii ci ndigalu xarit bi dañuy topp mbir mi bu jeex takk nguur gi dina jël ay responsabilités ñu desandi nag uh, ca jàmmaarloo ya nga xamante ne moom moo amoon uh, jàmmarloo ba nga xamante ne sax moom moo amoon foofu uh, ca mii Medina Gunas ñaari doomu aadama daal di cay ñàkk seen bakkan looloo waral jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum intérieur di général Jean Baptiste Tine nag daal dinay woote. Euh, jàmm akub euh, dal looloo waral nag mu daal di nag euh, ginnaaw nag dem ba nga xamante ne dem na ko foofu mu xamal population yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ci nag daal di leen di wax la nga xamante ne moom moo rootee ca waxtaan ba mu seqoo nag xalif général bu Médina Gounass ñu teewlu ko mi ngi woon ci micro Ali Manga dans la région de Kolda euh, bi nga xam ne dafa amoon ay yëngu-yëngu ay trouble yoo xam ne dafa amoon bisu tabaski yëngu-yëngu yooyu nag malheureusement am euh, na ci nit ku ci ñàkk bakkanam ak lu toll ci non tukki bi nga xamne dañu am ay gañu gañu genn aduna nak ñi ngi ingliné wu ci mémoiram euh ñi nga xamne ay dañ ci jëlé ay gañu gañu ñi ngi leen ñaanal yalla sorti euh, d'hôpital euh ak wër j'ai visité sax amna ci bi ci ëpp ci ñom sax genn nañ hôpital dem naa euh, toog ak ñaari xalif xalif yi ñaari xalifu communauté ñaari communauté yooyu pour dem wax leen ci turu président de la république. les enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé. ñu gis ne nag euh, bu ñu tabaskee ba ca ëllëg euh, nag dañuy seetlu ne Dakaaru euh, mi di capitalu Sénégal lu ci ëpp dafay tilim ndax ay butit ak i der looloo waral nag jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum urbanisme ak collectivité territoriale daal di taxawal mobiliser nag lu tollook juróom-benn junni ci ay doomu aadama yooyu liggéeyee foofu ca Sonaget ngir rek ñu daal di defar Dakar nag ba mu set waaye nag suñu sukkali sukkandikoo ci ay kàddu François Bass nekk nag délégué euh, départemental bu Sonaget foofu ca Pikine euh, jàpp na ne ngir rek daal bi cet daal di yokk ginnaaw nag feetu tabaski yile euh, le yi nag dañoo war a taxaw nag ngir rek jàpp ci ba dëkk bi du tilim sekkoon na waxtaan ci téléphone ak masour Diasse ñu teewlu ko. affaire kenn la ku nekk yaay jëlal sa bopp engagement tey nit ñi buñ ci dugalul seen loxo dafay nekk loo xam ne ñun dinañuy continuer di liggéey rek waaye résultat ñu ci bëgg am du mën a nekk donc ñëpp ci war a dugal seen loxo setal seen kër setal mbedd yi. jërëjëf dinañ ci dellu si waat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu gis ne nag diplomate arabe yi ca aj 2024 bi démb ci talaata ji xam ne nañ ne lu tollook juróomi téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ginnaaw aj ba nga xamante ne nag moom moo amoon foofu ca makka dara waralu ko nag lu dul tàngaay ba jéggi dayoo ba nga xamante ne am na ca barab bu sell boobu boobule ñi nga xamante ne nag ñu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan africain lañu euh, waaye ñenn ñi tamit euh, yeneen réew am nañ ay doom yi nga xamante ne nag ñoom it ñàkk nañ foofu seen bakkan Sénégal ci la bokk ñu ay Aïssatou Ba muy ñu ci ay leeral. juróomi téeméer ak juróom fukk ci ay bakkan rot na foofee ca màkkatal mukarrama gannaaw bi nga xamante ni jullit yaa ngi doon ji mamatal seen ak li ni mel nag ay diplomate yu nekkee foofee ca Arabie saoudite ñoo ko xamle yile bakkan rot nag li ko waral gën ca ràññeeku di tàngaay bu metti bi nga xam ne saytu woon nañ ko foofee ca màkka mu bokk ci dëkk yi nga xamante ne ñoo gën a tàng ci àdduna wërngal képp bile acc nga xam ne at bu nekk dafay am atub ren bi mu amoon aljuma dimanche ci tangor gu metti metti ci ab température bu ag ci lu tollu 51,8 degrés Celsius ñi ñak seen bakkan nak ñi bàyyeekoo foofee ci Égypte ñoo ci gëna a ko ndax ci xayma tollu ci ñetti témèr ak ñaar fukk ak ñett ci ay doomu Égypte ñak nañ fa seen bakkan bu ñu sukkandiko ci bërëbu tas xibaar boobee di AFP te mu jëlee ci xibaar bi ci ay borom xam-xam nekkee ci Arabie Saoudite ñaawteef nga xam ne Égypte fës na ko ci lim bi nga xamante ne woy ajkat yi ñàkk nañ ci seen bakkan bokku na si ñenn ci ajkat yi nga xam ne jóge nañu foofee ca Égypte amuñu woon autorisation ngir mën a aj li ni mel moo tax sóoraale wuñ leen woon si tente yooyu nga xam ne dañ ko daadee climatisé yeneen dëkk yu bokkut ak Égypte lim nañu ay bakkan yu rot dëkk bu ci mel ne Tunisie Indonésie Iran wala sax Sénégal bi ñu nekk atub ren bii nag lu ëpp ci million wuyu ji nañu foofee ca màkk ngir matal seen wareef en tant que jullit ñi si gën a bëri nag ñu ngi bàyyeekoo. ci Màkka lañ doon wax ñu wax nag ci li nga xamante ne moom moo soxal fee bi supp tabaski ñu seetlu nag ne xutba euh, baaxu euh, Sénégal la waaye nag euh, li nga xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne ay wu diine lañ ay imaam dañuy profité nag ci biir bés ngir rek waxtaan ak sénégalais yi waaye suñu sikkandikoo ci ay kàddu imam Mactar Ndiaye yenn ci ay imaam nag dañ ci wax ba wax ci loo xamante ne lu ëpp la wara lu ñu warul uh, wax la uh, loola waral nag mu uh, di ñaan ngir rek ñi nga xamante ne ñoom ñu ay imam wala ay xutbakat wala waaraatekat ñu daal di leen di yokk tàggat ngir rek ñuy éviter wala moytandiku leen ci ay erreur de communication moom it seqoon na waxtaan ci téléphone ak Mansour Diassé yàlla on note depuis plus en plus tey ay dérapage ci xutba imam yi ak euh, prêche yi nga xam ne tey yenn ustaas yi noonu koy def euh, te pour moytu lu nu mel euh, tey il faut que nos imams ak nos prêcheurs tey nu gën leen former surtout nag ci wàllu technique de communication dafa am solo kenn warul nekk imam pour benn association wala pour benn mouvement wala pour benn confrérie wala pour benn communauté ethnique donnée waaye da ngay nekk imam pour la communauté musulmane toute entière waaye itam nu rappeler ni base xutba lenn la mooy les propos de Allah subhanahu wa taala et de son message féete mooy kaddu yàlla ak kaddu yonent bi yooyu moom mooy base xutba ci loolu la imam war a sukkandiku pour mën a leeralal jullit ñi seen diine nu xam ko ndax Sénégal wax dëgg yàlla ñi seen diine bare na te yaakaaru nu xamee ko fenn lu dul ci xutba imam yi waaye tamit ci biir xutba bi tam imam bi war na éviter di évoquer ay questions crypto personnelles ay mbiru boppam wala sax di ci profiter pour solder ay compte wala di def ay règlement de tabaski wala xutba korité ñetti parti la parti bu ñëkk bi imam bi wax na taxaw rappelé fi leen li invité leen ci lan ci nu regal yàlla muy taqwallah ñaax leen ci nu dellu ci seen borom ñaareelu parti ba mu rappelé leen importance ak sensu bis bi bu dee tabaski mu rappelé leen sensu bis bi lu ko tax a jóg ak recommandation yi bu dee korité naka noonu waaye itam ci ñetteelu parti ba tam war na évoquer benn question d'ordre sociétal boo xam ne mooy def actualité mu leeral fi leeral ko fidèles yi bu ko defee fidèles yi jullit ñi mën ci tiir ay xibaaru bitim réew kii di euh, Vladimir Poutine nag di njiitu Euh, Russie moom nag agsi na démb ci talaata ji jàpp tey ci alxamis foofu ca Corée du Nord euh, Kremlin daal di koy xamle ci ab tukkib nemmeeku bile tukkib nemmeeku nag li ko waral euh, mooy ñu am ab xaatimuk déggoo Euh, diggante Moscou ak euh, Pyongyang euh, ñu jàpp ne nag waa Europe ñoom sax ñoom ñoo jàpp ne bile xaati mu ko déggoo ab menace la ñox jàpp nañ ne Vladimir Poutine si ba nga xamante ne moom la yegsi foofu ca capitale Corée du Nord nag du leen arrangé benn yoon ñu xam ko nag ci réseau bi nga xamante ne moom mooy Telegram ñu gis ne nag visite ba nga xamante ne nag moom mooy tukkib nemmeeku bu mujj ci li ñu jàpp nag atub 2000 la gëj foofule. ñu jàll ci euh, xibaaru tàggatu yaram ñu gis ne nag euh, lay ja euh, ñu ngi koy bëgg jënd ki ko bëgg jënd nag moom mooy waa Rome ñoom nag bëgg nañ ko jënd suñu sukkandikoo nag ci suñuy cadre nakango bu wiw sport ñoom jàpp nañ nag attaquant sénégalais bi liñu bëgg nag moom mooy mu signé ak club italien ndax jàpp nañ ne Euh, war nañ koo jëndee lu tolloog fukki million ak euh, fukk juróom benn euh, million nag euro laa wax waaye waxuma CFA ba tey ñu jàll nag ci li nga xamante ne moom mooy mercato ba ñu jàpp nag ne dirigeant FC Porto lu ñu bëgg nag mooy mooy Euh, ci euh, jeune défenseur boobu nga xamante ne nag euh, ma nga ca Barcelone moom mooy dañ ko bëgg jaay ndax jàpp nañ ne Portugal mënoon fa débarquer suñu sukkandikoo ci ay kàddu journaliste italien bi di Fabrizio Romano te waa wii sport daal di koy jàppale lu ñu daal di koy jàllale ñu gis ne nag Porto li mu bëgg mooy fukki million ak juróom nag moom la yu ci ay euro moom la ñu bëgg a jëndee euh, bile euh, nag joueur bile rendez-vous nag euh, FC Barcelone moom moo ko daal di fixé waaye semaine bi ñu jëm ñu gis ne nag dina am ab départ ci sénégalais bi nga xamante ne moom moo jëm ca club boobu di club catalan ngir rek daal di négocier pour ñu daal di koy jaay ñu jàll ci beneen xibaar jëmale nag ci xibaaru. tàggatu yaram ñu gis ne nag ki nga xamante ne moom mooy euh, capitaine euh, équipe euh, France di Kylian Mbappé moom nag dafa daal di damm waaye damm nag bu raar la damm ndax ci de bakkan la daal di euh, damm ginnaaw nag euh, jongante bu amoon ci seen euh, ca euro 2024 seen diggante ak Autriche ñu gis te nag amoon nañ ca benn bal ci dara ajuma gi nga xamante ne moom mooy ajuma bi passé ca lañ ko amaloon foofu ca Pays-Bas ki ko xam ne nag mooy fédération française de football ñu ki nga xamante ne moom mooy RFI daal di koy jottali ñu gis ne nag beneen. Euh, jéego dinañ ko jàll nag foofu ci suba waaye nag euh, attaquant euh, français bii di Kylian Mbappé gaañu na gaañu bu metti diggante nag tase bu mu taseek défenseur autrichien bi di Kevin Danso kon mbokk yi Euh, xibaaru tàggat yaram nag moo buur yi lay xibaar ñu leen di jëfal jaajëfal bu baax di leen wax nag ne déwénati leen euh, di leen di ñaanal fanaanuk jàmm bu 20 te dina Ourey Fall Diouf dina fi teew ngir dégtal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.